ay gi na mbàkke Cheikh Fallo fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariixu laay alaaji Fallo yaay rasulullaay jam nga fa Makka fam nga ni laay alaaji Fallu yaa juboog li laay am nga ngeen li yàlla hubbu fam nga ngeen li Bàmba hamdulaay sariyatu haqiqatul iman alaaji Fallu yaay borom kéemaan sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng sëriñ Modou Boussa Dieng bay baa def xalifa di moom xarnu bee Tuuba tabax jumaa ji alaaji Fallu mooy xalifa moom yoonu Makka new leen néew fa moo bi yoonu Makka ak Madina xarnu ay million sapee na moo bi